sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi euh, di am mbégte ci seen présence fii tey ci suñ produit plateforme mondiale bi nga xam ne taxawal nañ ko euh, di am mbégte bu baax ci seen teewaay pour que àddina bi yëpp mën koo xamanoon doon waaw man maay directeur général Touba lépp loo soxla. waaw ñu ngi sant bu baax ci question bi question bi am solo euh, yàlla dafa def nag euh, bi ñuy tout tànk am âge de 16 ans lañ génnoon Sénégal euh, te dara waralu génn googu lu dul dem jëli. loo xam ne danañ ko mën a séddoo euh, sunu réew euh, loolu ci biir loolu euh, expérience bu mel nii foofu lañ ko importé bu ma mënee waxee noonu léegi ñu gis ne dañu toll ci jamono joo xam ne internet population mondiale bi boo dee xool 75 wala 80 pour cent ñu ngi ci ñu ngi ci internet loolu tax na ñu gis ne Touba gi surtout. fi nga xamne moy suñu dëkk euh, fi lañ juddoo suñu lepp fi la nek ñu gis ne war nañu jariñu ci loolu té non seulement ka wa Touba rek ci jariñu mais bi yépp ci jariñu mais bay sa wewu tank ndax fi la idée bi idée bi idée bi idée bi juddoo jërëjëf euh, ñu gis tamit ne ndax am xalaat ngeen ci ni ko bindee muy lépp soxla parce que en Hmm. waaw euh, waaw mbirum wolof nag dafa xaw a yaatu te dañ naan wolof bind ko amut njuumte parce que ku nekk na koy dégg tax na ci loolu euh, tur bi ñaare en général ñiy dem ci internet bi ñaare boo leen waxee benn benn phrase rek ñaare mën nañ koo bañ a tàppe directement phrase boobu mën nañ ci am njuumte mais ñaare ñiy dugg ci ñiy dugg ci internet bi ñaare tur ya ñuy eh, dégg wala ñu koy kii dañ koy dañ koy lire fenn wala ñu am foo xam ne danañ ca mën a sukkandiku pour pour bindu ko ñaare ci yooyu lañ sukkandiku ñu gis ne suñ message dañu bëgg mu mu wër àddina bi yépp pour que képp koo xam ne bëgg nga dem pour découvrir euh, li nekk biir Touba lépp loo soxla euh, mu yomb ci yow par rapport ak la ngay yore pour mu mën laa guidé pour nga dem ca site boobu nan ngeen jàppale seen activité bi mën na contribuer ci développement Sénégal waaw xam nga fi mu toll nii petite moyenne entreprise yi état da leen a war a jàppale parce que euh, xëy na bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu demaloon suñu bopp rek xëy na ñëpp demal seen bopp Sénégal kon euh, mbir mi dana gën a metti mais boo gisee ñu jëli au moins euh, xam-xam yi nga xam ne amee nañ ko foofu gis ne moom fañ ko jëlee seeni réew ngay avancé te pourquoi pas ñun suñu réew bëgguñu mu mel ne. réew yooyu wala sax mu raw ko ci ci wàllu développement boobu nga wax noonu moo tax na lépp loo xam ne xalaat nañ ko ci loo xam ne day avancer dëkk bi ñu ñu ñu suñ loxaa nga ca biir. waaw comme ni ma ko waxee sànq euh, ñaare kuy liggéey te yaatal la ngay liggéey euh, da nga ci soxla état parce que euh, état moom doomu aadama yi ñoo ko fi teg doomu aadama yi ñooy état. kon nag képp koo xam ne mi ngi yëngutu di jëflanteek doomu aadama yi état war na la même boo boo ko contacté wul ñoom war nañ la saytu xool lan mooy say problème pour lan ca mën a def jàppale la pour que nga avancé yaakaar naa loolu mooy rôlu état te bu ñu ko defee bu ñu ko yaatalee yaakaar naa Sénégal jëm ca kanam. waaw suñuy moyen des fois xëy na ak suñuy moyen danañu permettre. mu ànd ak suñuy idée daal ñaaree lu ñuy xalaat ñaare dañuy dem ak suñu propre moyen euh, loolu danañu permettre yenn yenn waaw yooyu nag euh, wax dëgg yàlla euh, soo booguñ ci noonu ci pour am ay gàllankoor gis nañ ci ay avancement aussi ñoom it fañ nekk dañu war a bàyyi comme ni ma waxee léegi rek bàyyi ndaw yi nga xam ne bëgg nañoo liggéey ti yaatal liggéey bi ñëpp mën caa jariñu ci ñu xool seen i jafe-jafe ñu ñu tey waxtaan ak ñoom pour pour améliorer waaw création d'emploi yaakaar naa Touba lépp loo soxla euh, mbir la moo xam ne fañ ko bëgg a eggale ak fañ njort ne mën na faa egg bu fa eggee euh, yaakaar naa ne li muy jël ci emploi dana dana dana dana dana yaatu lool ndax ñi ko soxla ñoo bari est-ce que du risque loolu projet waaw waaw plateforme bi d'accord loolu dëgg la ndax fi mu toll boo demee ci réewu nasaraan yi ñoom ñaare yu mel nii dañ koy boole ak journal waaye comme loolu nga wax lañu lañu sóoraale moo tax ñaare surnal bi du du mën a du mën a du mën a nekk pour l'instant xëy na du ñak ci kanam bu ñu fi suñu borom bàyyee euh, mais jëmbi jamono ji dal comme yoy nga wax dañ koy soralé dañuy bëgg di di doxé benen benen benen doxin wo xamné nit ñi dañ dañ dañ ci mëna gis seen bop bu baax. wa ñing ci liggéey nak parce que li rek euh, manam liggéey la pour que nit ñepp xam xam xam ko d'abord. yeneen yëpp yeneen moyens yi nga xam ne mën nañ ko utiliser pour que nit ñëpp xam ko mm, partout dans le monde danañ utiliser suñuy moyens pour que loolu mën a ànd. ndax li ngeen am rek ngeen euh, noonu nag. Mm. Mm, site bi site la boo xam ne day faciliter doomu aadama yi seen i bëgg-bëgg maanaam képp ku am ay ay ay ay mbir yooyu fesal ci àddina bi yëpp ñu ñu yëg ko. da ngay ñëw fii ñu ñu ñu ñu ñu lancé ko am nañ ay partenariat ak ak ak ak àddina bi yëpp pour que mu mën a sa sa information mën a jàll ak lu mën a doon nag sof li nga xam ne méngoowul ak doxalinu dëkk bi li nga xam ne méngoowul méngoowul ak doxalinu Sëñ Tuubaa. ak client ba seen yéen effectivement noonu lay demee maanaam ñun euh, dañuy faciliter doomu aadama yi ñun duñ dox doxinu courtier. képp koo xam ne andi nga la ngay la ngay la ngay bëgg la nga bëgg mu jàll euh, ñun foofa lañ ci am ak yow dañuy joxe say coordonnées def ak yow contrat contrat ba moo xam 2 mois la moo xam 3 mois la moo xam 4 mois la moo xam 5 mois mais durant contrat bay daw rek yow say say produit mi ngi wër àddina bi yëpp. maanaam ya, lépp lu mën a doon lu lu loo xam ne suñu lislaam may nañu ko suñu loi may nañu ko rek boo ñëwee ñu jàllale la. dégg nga France ñu fii am na loo xam ne.

Wah ñu ngi sant ci ci ci ci ci laaj boobu laaj bu am solo la ndax eh, yu mel nii ngay wax dañ ko dund ba ba tay ci même ci réew yi nasaraan yi newoon ba ba ba ba ba ñoom it dañ ko doon xeex comme ni nga ko waxee pour que yooyu bañ am eh, nit ki nag liggéeyam li am solo rek mooy eh, nga nga sellal sa doxalin par rapport ak liggéey bu mu mën a doon non seulement que li affaire site sax mais leneen lu mu mën a doon ay njuñ njaaj mën na ca am yow nag yaa jël say matuwaay ba yow li ngay def mu nekk lu sérieux loo xam ne képp ku fa ñëw da ngay da da ngay indi lu sérieux comme par rapport ak yow ni ñu ko xalaatee ñu doxale noonu boo fa indee leneen loo xam ne méngoowul ak suñ doxalin loolu ñun du ñu engagé en tout cas euh, loolu moom li ci suñu xalaat mooy képp koo xam ne da ngay jaay kër euh, ñun li ñuy def mooy facilité la pour que ki nga xam dafa soxla par rapport ak kër ga ngay jaay mu ak bëgg-bëggam fay lay contacter directement comme quoi que yow bo jigon par exemple yow mi di jëndi kër nga dem ba ca kër ga loolu mom bu la ñu njaayee loolu yaak mom la du non parce que ki dañ koy faciliter ne ko amna kuy jaay kër barap sangam mom mu woko téléphone dem ca kër gam gam gam gam gam gam dégg ne dañ koy jaay légui loolu nak mom ñom ñaar la engagé ñom ñoo cay waxtaan ba ba ba d'accord ca bam gis lu wóor que nak kër gi effectivement kii moo moom kër gi ak la ca war lépp bu boobaa nag mu dem fañ koy lijjantee ci ña koy saytu xam ba xam kër gi moo ko moom wala leneen lu mu mën a doon bu boobaa nag muy door a engagé. nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw wax ne da ngeen yéene di jëf lii ci liggéey Serigne Touba di ci njiital Serigne Abdou Lahad Kébé doomi xam ne ñëpp xam nañ ko xam waajuram xam maamam. di ko rafetlu ni nga ko waxee ndax nee na lépp luñ ci def du génn lu dëppoog lislaam lu dëpp du génn lu dëppoog li Sëriñ Tuubaa bëgg yooyu nag euh, lépp lu baax ci la nekk lépp loo xam ne safaanoo naa loola yëpp doonul bu baax te moom bii tam ñu xam ci moom positif ak ak dëggu ak liggéeyee Serigne Touba ñoo ko moo tax ñu rafetlu ko bu baax di ko ci ñaanal ci barke Serigne wa ak daraje weer ñuy bëgg a tudd mu day seen ndam ak tawféex te seytaane bañ ci amul yoon nit yàlla di ci dimbale aar ko ci ba fa bëgg liggéey ba àgg fa mu àgg fa na ko njottam barke Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Amen. Amen. Amen.